question bu doy waar la ndax réew mi moo toll foofu administration bi moo dem ba euh, am ay ay carence euh, parce que xam nga DGE c'est une direction nationale direction dafa bokk ci état bi Sénat commission autonome la boo xam ne président moo leen di euh, choisir ñu nommer leen bu demee ba DGE ak Sénat mënuñu déggoo ci benn mbir ci jëm ci wàllu élection yi ni koy organiser ku nekk candidat ku dul nekk candidat ça montre que état bi am na fragilité quelque part et la difficulté dans ça c'est que muy DGE muy Sénat ci sama gis-gisu bopp ña fa nekk jiitu ko ñëpp ay nitu principe lañu muy commissaire Thiendella Fall que je connais très bien c'est un, un grand commis de l'État mm-hmm. euh, inflexible et très responsable xam naa ko bu baax la sama suma xarit la mm-hmm. le magistrat Doudou Ndir également xam naa ko bu baax a baax nitu principe la. finalement qui a été limogé. ànd nañu sax ay mission à l'extérieur. Mhm. ci ay dossiers yu gën a compliqué sur la criminalité transnationale organisée en tant que magistrat donc ñaar ñooñu ay nitu principe lañu bu ñu nee ba feewaloo ci décision kii jël décision bi kii bañ a jël décision boobu bañu ñu féewaloo ça veut dire que li leen coiffé moom mu amul cohérence parce que boo namee kilifa yu toll noonu. ci structure yu toll noonu ci état bi euh, da nga leen war a bàyyi ñu jël seen décision parce que un directeur national c'est quelqu'un de de d'important kenn du ko nommer n'importe comment euh, un grand magistrat comme du euh, Doudou Ndir c'est quelqu'un également de très responsable donc il faut ñu xool lan moo waral loolu lépp te damay jàpp ne man euh, ci kaw la jóge nekkul ñoom seen coobare ku ci nekk la nga la nga la la warloo ci sa diggante ak sa liggéey xam naa ne am nga matuk taxaw ci ba mu mat sëkk donc bu demee nii rek war nañu xool fii wañ gi baña li ñaan wañ ngaa ngi baña te mbanjaxaan nga man nag samay wax du ma ko raay raayal mhm. dafa mel ne ki leen teg foofee nekk seen kilifa xañ na na mu war a doxale pour ku nekk yem ci sa cër doxalewul noonu ñu daal laa ko jàngatee la tête benn une sorte d'épée euh, d'épée mënu euh, ma ko waxee noonu parce que nekkuma ci seen biir pour xam ko mais je dans le principe kilifa yu toll noonu responsabilité yu toll noonu boo ko dénkee da leen di bàyyi ak seen teeyu bakken ñu def seen liggéey ki ñu leen ko charte réew mi santé waaye boo leen nawee ba pare toog ca kaw nag ba leen manipuler yu mel nii rek ngay am